saalihu géy sëtub sëriñ mor asta géy dëkkee badar moo del siwaat ngir fent way bis bi nu jël jagleel ko sun jàmbaar ja seex moustapha ma fondement jumaa ja moo tax ma jël xalima tey ngir way ci lii géej la kat bay boo ko yegg si nuur ci danaa la wax tuuti ci ay jaar-jaaram nga xam ni gàllewul fëkkër maam maharam cheikh moustapha daaru salaam la feeñee mook cheikh yi fàllu mbër ma ñëpp ràññee soxna amintolooy ndeyam xaadim rasul mooy waajuram bu góor cëram neexu tasul waa ndaam ña ak waa mbàkke ak waa kokki foofa la bokk ba ko neexoon funki gor lañu garmi lañu am nañ xam-xam téewal musoo bu nag ba làq ay ndam seex bamba baay baa ko dalal alxuraan jébbal ko siñ daam ba fa ndaam mooy ndaanaan ca ak ndawam la teel a ñàkk yaayam moo tax sëriñ bi rek la xam mooy waayam fépp fu sëñ bi nekk ñoo fa nekkandoo taxoon ko lool wutul xarit mbam àndandoo Cheikh Bamba ba mu nekkee Jolof doomam ja Cheikh Moustapha nga woon ca biir daaraam ja foofa ca Mbàkke Baari sax la Bamba ba woon njabootam gépp dem Maayomba Cheikh Moustapha mii ak rakkam Cheikh Fallou mag leen joxoon Cerno rakkam jëm wóolu maam Cerno booba mooy ka daa ko jàngal ba mu wàcc ay yoon yàlla def mu mokkal ba mu mokkalee la beqi bind kaamilam jébbal ko maam Cerno mu jox ko baayam Gabon la Cerno yónnee woon Cheikh Bamba kaamilu seexi Moustapha taawam ba Cheikh Bamba sant yàlla ak yónneen ba kër keroog la téeñ Cheikh Moustapha yanam ba xam-xam ba tey maam Cerno ak borom saam ñoo ko ko jàngal ba mu raw ñëwoon saam Cheikh Bamba ba mu jugee ca tukki géej ga daarul manaan la wuti mooy këram ga Cheikh Moustapha mii booba daarul manaan la féete woon ca baay ba yéem waa Soodaan Cheikh Bamba ba mu nekkee fa gànnaar booba woo na fa Cheikhi Moustapha taawam ba boole ko faak ay naar yu daa ko jàngal xam-xam yu xóot teewul mu daa ko mokkal Cheikh Moustapha ba baay ba nekkee fa Ceyeen ma nga fa woon nee naa la moom rek la miin Cheikh Bamba ba mu tuxoo Ceyeen dem jaareem Cheikh Moustapha nga woon fa moom ñu ko yéem ngir dogu gaak taalibe gaak woyof ga yéemoon na ñëpp mos la toog ca kër ga jàmbaara lool liggéey bu nit ña woote mooy ka ca duñ ko ba mu wute da daa laxas ndiggam la bopp ba defi njañ woyef ga ak mbaax gaa waral mu néewi bañ Seex Bàmba xëy sant ko lool gërëm ko jox ko ndigal mu dem tindoo di gor ko yoroon na foofa tool yu rëy telum ñoral jébbal ko baayam toog di xaar yenn ndigal gannaaw ba nag gor na yeneen ni dëkk daa bi ak jàngale nit ñay dikk Seex Bàmba saa yu nekk daana woolu Seex Moustapha ngir daa defoon kum wóolu Seex Bàmba bam naalee jumaay Tuubaa Seex Moustapha mii la joxoon liggéey ba lam daa ca wax mbaa di ko wax doomam ja Cheikh Moustapha lay yónni ngir jomam ja tubaab ba mas naa woolu ba ak ngan fee ca Ndakaaru ngir jikkoom yëm leen wan keroog ba muy dem ma nga ànd ak doomam Cheikh mustafa nee naa la woon mooy waayam Bàmbaa ko noon sarak yi jàppale leen te jàpp leen yow rekk lañ am du keneen Bàmbaa ko noonu fexeel jumaa ji yegg ba ngeen jullee ko loolu mooy saak bëgg Bàmbaa ko noonu bu ma fi bàyyi ko itam yóbbu ma Tuubaa kon nga làq ci ngërëm def ko te kat fexeel ba xat du damm sama ginnaaw yoon wépp na ko sàmm keroog ba muy dem Moustapha ngi cay daaraam ba mu ko yëgee la faq wuti njaarim taxawu siñ ba jël ko yóbbu Touba te xat dammul yéemu na ñépp boobaa boole njabootug siñ bi ak seexam yi ci génn buum doonoon ku saf mbokkam yi bis nag la xëy dem ca tubaab bay wut kayit ngir ba door jumaa ji moo ko am mérite tubaab ya naa ko loolu jot sumb ngir mun la ne mbaa buy amit du yomb matériel ba koy liggéey amul ci Sénégal France la am te yéen amoo leen jooja maal faaw it mu am raay bu yenoo bagage ya njaareem ba Touba yaay dundal gaskat ya carrière ba fam ne yaay lijjanti ay gaay ñu koy tubbee foofa di yóbbul ñee liggéey ña koy liggéey duñ lekk laax ceeb ndawal la ñuy añee bis bu ne yaa leen koy wutal bul fàtte nag Touba murit ya ñoo fa boof Bàmbaa ko sancit waaye nag du seen suuf Cheikh Moustapha ni leen lu ngeen ma teg rek man noppi naa tegoo ko ngir liggéey bi jag